aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki internet yu Medina TV ñu ngi leen di nuyu bu baax seen mbokk la moo ñëwaat ci seen kanamu écran di Abdoul Aziz Niang Sy Dabakh xaritu mboole ko bëgg lu baax man maay sa xarit saa yu ma déggee xam na ci jàmm rek laay dox waaye saa yu ma déggee xam na ci jamono rek laay dox damay faral di wax ne jamono mënta dox te doxaloo doxul du yonent bi sallallahu alayhi kenn ci góoru yàlla yi kenn ci jàmbaar yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimal Moustapha yan ngi yàlla fayal digit safar la wax ñëwati na màgg gi ñëw na en route màggal waaye nag mbokk yi tey ñu am gan ñoo am gan gu màgg gan gu baax gan gu yaru gan gu xàmmee nit nag boo waxee rek feeñ incha allahu rabbi bu nuyoowee di ngeen xam kan la bu ñu xuusee ci biir waxtaan bi di ngeen xam kan la en route vers Magal nañ jëm Abdoulaye Anne boo ko defee ñu bàyyi la nga nuyoog mbokki réew mi waaye mbokki internet Medina TV. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. Serigne Abdoul Aziz Niang Sy Dabakh. ñëpp xaritu ñu baax ñi. wallaay ndeysaan. maa ngi lay nuyu bu baax. di kontaan ci invitation bi. di nuyu mbooleem internetu Medina TV. di am contentement bu baax nag ci delluwaat ndax fii. sama kër la donc bëgg naa lool Abdoul mi ngi noonu Ablaye balaa ñuy xuus ci waxtaan bi ndax tey ñàngale ngeen nar a dégg fii orientation ngeen nar a dégg balaa ñu si dugg rek dañuy wax dañuy wax tuuti ci màggal gi ñu jëm màggal gi ñu jëm naka nga koy waaje xanaa Abdoul Aziz di santaat yàlla rek suñu boroom subhanahu wa ginnaaw bi ma mayee ma fekkee waat weeru safar. fekkee waat màggal gi nga xam ne ñu ngi ko ñu ko dëgmal di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa mu àggale ñu ci ak jàmm ak ñu koy waajalee rek mooy ni ko sëriñ bi digle sax ci jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla jàng alxuraan jàng xasida boole ko ku bernde donc noonu lañ koy waajalee boole ko képp ku ñu mën a dimbali ñu dimbali la ba nga àgg ci bërëb ba santale ko suñu boroom jàpp ne noonu la ko foofu lañuy ñuy ci benn boobu nga wax Serigne Mountakha yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér sàmmal ñu ko mu am lu mu àndi safar leen ñu gis safar bi li ci am ci njàngale mu yaatu loolu xam naa loolu dama lay bàyyi nga nga gën ko yaatal ndax mag ñi lu ñu andi rek am na lu tax ñu andi ko gis nañu relation yi nga xamante ne safar mi ngi koy def ci ci biir quartier yi. Tidiane Mouride Layen xaadir àndandoo def ko joxe ñam jàngat nga ci am. xam nga Abdoul Aziz mag ñi jàmm la ñu woote ci lépp. waaw boole stratégie bu ñu teg rek ngir mën a wommat ndaw ñi ñu dox ci diine ci jàmm lay lalu. waaw léegi nag sëriñ Serigne Mountakha Mbacké yal na ko suñu borom yàggal lool te mu ànd ak wér boo xoolee ni nga ko tuddee léegi. Eh, ñu koy woowee borom mbégte ni da ngay gis ne li muy dund souvent day def jeexital sax ci ay actam. yal na suñu borom ànd euh, def mu yàgg fi lool te ànd ak wér euh, ni nga gis nag li nga wax léegi par rapport ak ni ko ndaw ñi du dundee ci quartier yi moo xam tijaan nga moo xam laayaan nga moo xam bokkuloo sax ci diine ji euh, nga xam ne dañ koy organiser di ci joxe ay ndaw ay ñam ak yooyu boole ko di ci bëgg lool ak li suñu borom wax ci jox nit mu xiif nga jox ko mu lekk. Mm-hmm. yii wu ci ne. Mm-hmm. nga gis ne loolu sëriñ bi noonu rek la ko bëggee. waaw mm-hmm. noonu rek la ko bëggee yàlla ci suñu borom. Euh, def jàmm te mu def jeexital positif ci askanu senegal yépp euh, Abdoulaye euh, yoonu murit ñu gis taxawaay bi mu am ci jamono ji ndaw ñi wuti ko mag ñi wuti ko hmm. impact bi nga xamante ne moom lay def ci ndaw ñi xam nga sëriñ bi dafa am lu am solo loo xam ne moom mooy bokk na ci pilier yi nga xam ne moo yor réew dama koy faral di wax souvent euh, sax dem naa sax bu bu ma ko tàmbalee ñi may toogal souvent dañ koy eggali damay wax naan ce ne sont pas les de la stratégie qui amènent la performance mais plutôt les hommes qui les appliquent correctement Serigne njàng leen ci nit ñi la ko defal yitteem yëpp ci doomu aadama yi la cest à bi dafa ñëwoon pour tabax nit ndaw ñi nag daw songu yoon wi ak defaru rek moom lañ fa lañ fa lañ fa lañ fa namm léegi nag da ngay gis ne ci ndaw ñi fi nekk. da ngay gis ñoom bu baax ak defaru da nga ciy gis ci ñoom yar da nga ciy gis ñu mar xam-xam lool da nga ciy gis ñoo xamante ni si dañ ciy ànd ak détermination te lii bokk na ci les piliers yi nga xamante ni si moom mooy sous-tendre réew pour bu bëggee jëm ci kanam. mu mm-hmm. nekk ci wàllu économie que mu nekk ci wàllu leneen ak leneen donc jikko yi. bu ko nit jikkawoo ba pare xam-xam bu bu mënti ñëw wala leer gu mënti ñëw dina ko mën a dina ko mën a jëmmam dina ko mën a àttan Ah, donc sëriñ bi loolu la woote. te itam foofu la tënkoon boppam nan lay def ba defar doomu aadama defar nit tabax doomu aadama ndaw ñi ni nga ko waxee léegi ñu dawandoo songandoo yoon wi ñoom itam loolu rek lañu fa nam te suñu borom dogal na bu ñu demee itam loolu lañ fay fekk. est-ce que Abdoulaye gisoo ne euh, jot na ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax ñi nga xamante ne ñoo joxe orientation yi ñu dellu ci njàngaleem mag ñi ak orientation mag ñi jox ko jox ko ndaw ñi. jot na ñu ñu ñu changer communication yi ndax fii fii jamono toll te ndaw nag moo yor réew Abdoulaye. dëgg la xam nga kuy wàlliyaan si. Mm-hmm. daa fekk sa dëkk a tëggul. Mm-hmm. ñun soxlawuñu du roy ci Orient wala roy ci Occident di roy ci araab yi mbaa ñuy roy ci tubaab bi soxlawuñ ko. Mm-hmm. parce que suñu borom daf fi def lépp luy ressources humaines boo xam ne mën na permettre ndaw ñi ñu mën a am référence. xam fi ñuy teg seen tànk bu mën a teg ci yoonu tekki. loolu suñ borom def na ko fi. li koy firndeel lekk bu ñu ñëwee tuuti ci wàllu économie damay def benn analyse boo xam ne damay tàmbalee 1960. c'est que dinaa ci ñëw. di nga ci ñëw ci modèle économique euh, Mouride. voilà donc incha allah dinañ ci ñëw ci beneen beneen beneen beneen waxtaan bi. beneen waxtaan beneen question bi dinañ ci ñëw. d' accord maintenant balaa may dugg foofu pour yemaat rek ci tontu bi nga bi nga wax nii. Eh, référence ñàkku fi waaye ñu fës ñu war a fësal référence yooyu pour ndaw ñi man cee tegu ba tegu ci yoonu tekki te duñu réer ci géeju géejug réer goo xam ne du ñu tàbbi ci géejug réer goo xam ne ci ay mbirum na xasakandang rek la leen dugal ña war a fësal référence yooyu ñoo ko deful mm-hmm. waaye nag da ngay gis ne am na jamono bi ñu toll nii am na rupture par rapport ak pratique boobu amoon médias yi souvent gis nga ñi ñu war a génne ñu war leen jël comme référence duñ leen duñ leen génne dañuy fekk waa ju ju tekkiwul dara rek te li muy wax mënul am benn jeexital ci ki koy déglu ñu koy. ñu koy fësal saa su nekk. ba souvent dañuy jàpp na sax boobu mooy solution bi ba ñu topp ko alors que solution bi de loolu solution bi mooy mag ñi nga xam ne suñu borom euh, def na ñu jaar fii ci réew mi ba jóge fi bàyyi fi héritage ñooñu ñooy référence bi te ñooy solution bi. macha allah Abdoulaye fii nga daanalee sànq foofu la ñuy ñëw dugg. yaatal si mooy le modèle économique murit ndax foog ñu wax ci yaatal ci aussi tamit ñi nga xamante ne ñooy seetaan am luñ ci mën a jàngee ndax Touba ville économique la. Hmm. kon nag le modèle économique murit war nañ ko wax nit ñi. yeneen yeneen yeneen région yeeg ñëpp ñu mën a xool ci modèle économique boobu. Hmm. tey bu ma ñëwee rek nga laaj moo modèle économique mu rek automatiquement ma jox la benn réponse bu automatique ci loolu. Mm-hmm. day day mel na lu ñu tabax teg ko la di xaar nga nga wax rek ñu tontu la. Mm-hmm. waaye dañuy def une analyse ensemble analise bu globale boo xam ne c'est depuis 1960 jusque là. Mm-hmm. ñu xool ndax est-ce que am na besoin ñuy ut beneen modèle bu dul bu dul yi fi nekk nii. boo xoolee Sénégal diggante 1960 ak léegi am na ñeenti président yu wuute. waaye seen approche. économique xaw a méngoo tuuti rek eh, boo xoolee Léopold Sédar Senghor euh, mi ngi gane jamono am 1906 fii ci ci ci Joal juddoo fii ci réew mi nekk séeréer nekk doomi séeréer. Mm-hmm. alors mu nekkoon ci réew mi doon góor góorlu ñu fal ko en 1960 ginnaaw bi mu jógee ci parti socialiste boobu nga xam ne euh, dañ ko caa rek mu dem ba suñu borom def mu am fa doole daal di daal di nekk président de la République en nga xam ne moom approche économique bi ma amee woon da nga naan gis ne économie réew mi lépp li ko yoroon ak pour cent ci mbayum gerte mi la woon waaw ba bi sécheresse di am Sénégal en 1967 ci lañ gis ne mbayu gerte bi dafa chuté de de de 20 pour cent nga xam ne jafe-jafe tàmbali woon na am ndax moom approche bi mu amoon ci benn axe rek la ko tegoon eh, ñuy dem ba suñu borom def Abdou Diouf bi nga xam ne. Euh, mu ngi juddu en 1935 jàngee fii fii Sénégal jóge fi dem bitim réew dellu si waat Sénégal nekk gouverneur bi mu fa jógee nekk directeur de cabinet bu bu bu Léopold Sédar Senghor nekk secrétaire euh, euh, général à la présidence nekk ministre plan nekk premier ministre ba bi Senghor di démissionné à 1981 Abdou Diouf yor yoon mbir yi bi mu ko yoree moom itam soppiwu ci lu bari. xaj na dafa laaj rek doole tuuti tubaab yi jox ko doole ngir moom mooy wo mën a wéyal mbir yi mais da gis ne recette Sénégal yëpp ci jamono boobu da doon dem ci ci service de la dette parce que PIB bi yëpp daanaka li ci tegoon yëpp daanaka ay bor woon. Hmm. yoo xam ne Sénégal da ko doon da ko doon jël ci bitim réew ngir mën a ngir mën a doxal nga xam ne ba léegi amul. benn indépendance économique bu ñu am toujours dañuy wékku rek ci tubaab yi ngir mën a doxal bi Ablaye Wade bi nga xam ne 1926 la gën a jamono moom itam ñëw na euh, en 2012 pour euh, en 2000 pour mën a wuutu wuutu Abdou Diouf avril 2000 pour mën a wutu Abdou Diouf bi mu fi bi mu fi nekkee moom itam ci nga sax santir ne soumission boobu amoon diggante Sénégal ak tubaab bi mu ngi wàññeeku ndax Ablaye Wade du ko sañoon wax la. waa donc dafa waroon dem rek ba ne tubaab yi waratuñu kenn waratuñu assisté comme des mendiants ndax du ay du ay ñaankat donc dañu war a bokk ci ñi nga xam ne dañuy décider ndax Afrique gu tey dafa ute Afrique gu démb donc loolu bokkoon na ci li nga xam ne ab Abdoulaye Wade daan ko prôné ak une indépendance financière une indépendance économique mais suñu borom dogal na loolu itam mu mujjul woon antu ndax bi mu demee ba 2012 kii di Macky Sall dafa ñëw proposé ñu leneen mooy le plan Sénégal émergent hmm. plan Sénégal émergent boobu également dañu gis ne sax. moo xawata nañu fi ñi ko ñi ko précédé ndax boo xoolee am na li ñuy tuddee croissance économique gis na euh, mbir yi doon dox bu baax a baax a baax mais boo xoolee ba léegi diggante 1960 ba léegi Sénégal dafa dafa dafa am retard bu bu bu bu doy ci wàllu économie parce que ba léegi ñu ngi bokk ci parmi les pays les plus pauvres du monde boo xoolee ci population sénégalaise bi yëpp dañuy dund dans la pauvreté. l'autre moitié dañuy dañuy survivre maanaam dañuy dañuy dund ngir bañ a dee une petite partie de la population ñooy dund dans l'aisance te ñooñu xaaj bi ay politiciens lañ ñi ci des ñu néew lañ ci réew mi ñu réussir ci wàllu liggéey ak yooyu waaw donc nga gis ne retard boobu ñu am amul lenn lu ko waral lu dul nañuy jéggaani modèle économique xam nga jéggaani modèle économique boobu euh, souvent ñay ñay xalaat ci modèle boobu duñu sax nekk ci réew mi nga ne duñu fi ci beneen réew la ñuy nekk te ñooñu courant littéraire yi la ñuy la ñuy basé wu souvent pour créer seen seen modèle économique ci courant littéraire yi mooy ay tarixa lay doon ci wàllu économie ci courant littéraire yooyu mën nañ ci tudd ku mel ne David Ricardo Adam Smith ak yooyu mooy les classiques am na aussi les physiocrates xam nga physiocrates yi dañ ne la richesse d'un pays pour provenir de l'exploitation efficace de la terre xam nga loolu boo ko déggee rek de façon générale bu la neexee nga am ci appréciation bu la neex waaye yow mi nekk ci réew mi fii Sénégal waroo fa waroo ci am beneen appréciation bu dul li nga li nga bëgg mu doxee ko exploitation efficace de la terre pour man personnellement warul nekk leneen lu dul mbay mi classe gi ne la richesse d'un pays doit provenir de l'application efficace du facteur travail capital et division du travail pour man ci yoon wu ñu ne facteur travail ci yoon wi mooy xitma facteur capital mooy addiya division du travail mooy di sëriñ bi tasee seexam yi ci Sénégal kenn ku ci nekk nekk fi bërëb ñu liggéey di ko converger ci benn point 30 ci ginnaaw sëriñ bi ku la mayoon kër Touba doo ko jël tey moo nekk deuxième ville économique du senegal boo boolee mbay mi boole ñett yi ma la mujjee wax daf lay jox modèle économique murid originalité bi nag fi mu jógee mooy d'abord addiya boobu ma la tuddal sànq cotisation yooyu nga xam ne taalibe yi dañ koy def. xoolal jumaa ji nga xam ne moom mooy réussite bi njëkk bi yoonu murid def ndax ñu ngi ko def vers les années neuf cent mille neuf euh, mooy jumaa ji nga xam ne mooy jumaa njaareem bi loolu ay murid ñoo dajale seen addiya amul kenn ku ci dugal sa xaalis ku dul ñoom ba taxawal jumaa ju ni mel xoolal jumaay tubaay bi ñu ko dalee tàmbali bi ñu ko dalee tabax ba léegi ay murid ñooy dajale seeni weccet di ko di ko tabax c'est-à-dire gis nga modèle bi ma lay wax def la communauté doit être au-dessus de l'individu li ñëpp moom nit ki daf ko koy jaral mu génnee ñaxam def ko pour ñëpp jariñu loolu dafa bokk ci originalité bi waaye modèle économique bi ma lay wax nii mooy modèle économique bi nga xam ne pilier yi ci ñett yi lay reposé wu déjà day fexe fexe nga nekk nit koo xam ne ko décomplexé nga vis-à-vis de l'Orient vis-à-vis de l'Occident beneen bi ci des day fexe nga nekk nit ko am détermination détermination boobu nag ma lay wax sëriñ Touba jàngal ko taalibe yi mi ngi ko doonnoo ci Seydina Ahmed sallallahu alayhi wa sallam ndax ni nga ko doonnee ci moom gis nga xare bii di xare dar bi ci yonent bi demee sallallahu alayhi gis ñi mu àndoon ak ay saxaaba saxaaba yi mu àndaloon ci valeur numérique ñoo gën a néew yéefar yi yéefar yi leen ëppoon foofu junni yoon waaye détermination bi rasulullahi àndaloon moo waral xare boobu mu xare ko ba suñu borom defal ko ci ndam tax aussi détermination aussi dafa tax xare boobu bokk ci xare yi gën a siiw ci mu def beneen bi ci des mooy le travail licite maanaam di di liggéey liggéey bu lew ñaq-ñaq bu lew. moo jafe. lii moom mooy modèle économique mouride gis nga modèle bii bu fekkoon ne fexe nañ ba réew mépp tënku ci sëriñ bi lii ñuy jéggaane doon moo jar. ndax fi ñu bëgg réew mi tego da ko fay dafay. léegi Abdoulaye balaa ngay yegg li rek euh, par rapport ak li nga wax décomplexion bi nga wax détermination bi ak travail. lisit licite bi nga wax. Euh, léegi nan lañu war a def ba tënku si ñetti mbir yooyu. xam nga maa ngi la koy wax sànq Serigne Touba ci njàngaleem daf ne daf na bu ngeen bañee gàcce. uti leen xam-xam balaa ngeen di jëf. sinon ci gàcce ngeen def nit ki mënoo jóg rek nekk ci benn mbir jàpp ne di ci dina mën a def jeexital ci su dund ak su dundin te amoo ci xam-xam nañu uti xam-xam ba pare nañu yaru lool ndaw ñi ngir stratégie xam nga dama ko wax ci début bi ce ne sont pas de la stratégie qui amènent la performance mais plutôt les hommes qui les appliquent correctement du lii ma wax ni mooy indi performance mais ñi koy appliquer ñi koy appliquer nag dafa am ay jukko yoo xam ne dañ ko war a làmbo sëriñ bi fii Sénégal secteur informel bi ñu fi ëpp xam-xam suñoo toog baamu école ci daara jii la ñu jóge daara ji nag mooy jàngale yar daara ji moom mooy jàngale liggéey lu lew daara ji moom mooy jàngale yi nga xamante ni si ay valeur la te boo amee stratégie boo ko àndee seen seen seen seen seen stratégie yooyu ngay indi valeur yi ñuy làmboo mooy tax ñu man ko attan foofu la réew mi tege léegi nag xam nga maa ngi la tuddal sànq mbay mm-hmm. am na jamono bi ñuy bi exode rural di dogga tàmbali ñu bari bàyyi ko ci village yi daw utali ndakaaru boobu boobu ndakaaru dafa xew boobu lu jiitu suñu judd la mm-hmm. boobu ndakaaru xew na ñépp daw utali seen ndakaaru Serigne dafa def message bu fort mu ne ndaw ñi bàyyi ko ci village yi dem ndakaaru nañu dellu si ci ci village yi ngir mën a bay bay bay tool yi boobu mu ngi incité ndaw yi pour ñu pour ñu nekk ci ci ci ci mbay mi. Hmm. ndax mbay dafa bokk ci liy jëmal réew kanam. Hmm. daf ci bokk. exemple bi ma la ci jox en 1991 état wu Sénégal dafa jox Serigne Saliou Mbacké yal na yàlla yokk leeram. amiin 45000 hectares. fii ci Xelkom. ba pare bi mu ko ko joxee amul subvention derrière amul benn appui de l' état derrière. taalibe yi ñoo ñëw. ak les les fidèles mourides la ak musulman yi ñëpp ñoo xamante ñëpp ñëpp képp ku bëgg lu baax jàpp nga ci mu am ay daara mu fay jàngale l'islam yàggul dara investisseurs yi tàmbalee ñëw nga xam ne ci diggante ci diir bu gàtt investi nañ fa presque 3 milliards lañ fay génnee ca mbay kenn xamul nu mu toll. nga xam ne diggante diggante fii ndakaaru boo fi bàyyi ko jëm xelkom ci yoon wi yëpp dalay leer na lii bu xelkom existé wul woon kenn du def investissement bi bii nu toll nii ci réew investissement maanaam mbay day tax infrastructure bi investissement ci wàllu infrastructure mën a mën a mën a yéwén te infrastructure day tax réew yi dëkk yi jokkalante bi mën a gaaw léegi nag loolu moom mooy dundal réew ndax tey xelkom bu existé wul xañ na diggante dëkk yi nekk xelkom ak ndakaaru dëkk yooyu duñu existé waaye existence su xelkom ak activité bu am solo bañ fay def xaj na moo tax dëkk yi nga xam ne nekk na ci diggante bi mën a existé investissement yi ñëw dëkk yooyu di mën di dund noonu la ñu dundalee réew parce que dëkk boo ko xasee ba sanc ndax te mbayee tax nga san sanc ko faaw nga ut yoon wu fa jëm foog nga développer infrastructure infrastructure nag bu développé ba noppi da ngay gis ne dëkk yi dox digganteem ak ndakaaru da ngay gis ne dëkk yooyu itam day dund donc lu nu mel aussi état bi daf ko war a yaatal. waaw daf ko war a yaatal bu baax a baax ci biir réew mi. macha allah Abdoulaye yaakaar naa euh, jëlee nañ ci xam-xam bu yaatu. waaye dañuy rebondir tuuti ci wàllu mbay mi nga xamante ne fa nga fa nga nekkoon euh, yan zone nga yaakaar ne bu fa état bi investiré bu fa investiroon te tënku ci modèle yi nga wax ñooñu dinañ fi mën a toog. xoolal gis nga Abdoul Aziz état bi investissement bi warul sax yem ci mbay rek mooy agriculture mais dafa war a sax investir ci industrie de l' agriculture ndax bu ñu mbayee ba noppi bu ñu bayee ba récolter souvent da ngay gis ne li ñu bay dañ koy exporter di ko jaayi bitim réew alors pourquoi pas ñu investir ci zone yi nga ma laaj ni dinaa ci ñëw après ci zone yooyu ñu investir fa ci mbay ñi ndaw ñi dem ci tool yi bay waaye nag li transformé meññeentef googu li koy transformé dañ ko fa war investir mooy industrie de l' agriculture bi ma lay wax dafa am ay zone yoo xam ne six zone la ay zone écologique yoo xam ne bu ci réew mi bu ci bu ci tey les tenants du pouvoir bu ñu fa defoon investissement ba ca raw ca war ndaw ñu dëkk ci gox boobu soxlaatu ñu ñëw Dakar pour ut si liggéey dañuy toog te dinañu liggéey dinañ jariñ seen réew ci zone yooyu Casamance ci la bokk ndax Casamance la ñuy bayee ceeb bi fa la ñuy bayee yenn fruits yi mango yeeg yu ni ak acajou beeg yooyu fa lañ koy bayee mais pourquoi pas ñu investir ci mbay moomu ndaw ñu toog fa waaye investir ci ci ci industrie de l'agriculture loolu ñu fay bayee ñu koy transformer foofu nga xam ne ndaw ñu dootu ñu soxlaati jóge Casamance pour ñëw Dakar di liggéey si zone des Niayes bii fa la bokk yaa ngi dégg zone nord bi diggante maatam ak ak Saint-Louis ci la bokk bassin arachidier bi diggante cees Louga ka Kaffrine euh, Thiès Louga ak kawlak ak Fatick ci la bokk donc ay zone la yoo xam ne tey bu ci état bi defoon la ca war ci wàllu investissement ci agriculture ak industrie de l' agriculture ndaw ñu soxlaatun pour ñëw. Hmm. loolu ñuy tuddee exode rural dootul amati mais ça sera le contraire exode urbain la ñuy am foofu. nii la ñu développé réew. da tànn ay zones yu stratégiques yoo xam ne dalay leer na boo fa dugalee xaalis ba ca war di nga investir ci agriculture ndaw ñi am liggéey di xëy ci tool yi waaye investir ci industrie de l' agriculture bu ñu liggéeyee ba noppi ba récolter la ñuy am comme produit mën ko transformer waat ci usines yi. loolu itam mën a desaat ci réew mi wala sax bu ñu koy importer on gagne deux fois plus lii la ñuy defee réew waaye nag bu fekkee ne da nga bëgg tënk ci ay tâtonnement yooyu. te tënkuwul ci benn xam-xam gaw ma ne mu mën a mu mën a def ceexital bu bu positif ci ci ci réew mi ngi noonu dafa am loo xamante ne du ñu jàll li ñu desee si waxtu barewul te waxtaanee wuñu ko mooy relation Cheikh Ahmadou Bamba et waaw waxtaan la woo xam ne question la boo xam ne eh, umpul ñu bari. Mm-hmm. waaye dinañ sawar lool ci ci ci tontu ci. ndax xaj na réponse bi ñu ciy joxe xaj na mën na am mooy réponse bi ñëpp xam. waaye réponse la souvent bu may am envie di di wax. tubaab bi dafa ñëwoon ak mission mission civilisatrice waaw tubaab bi moom dafa jàppoon ne ñun civilisé wu. waaw mu ñëw ak mission civilisatrice maanaam jëlee ñu ci benn culture yóbbu ñu ci beneen boo xam ne moom la jàpp ne moom mooy bi gën. sëriñ Touba tam suñu borom fexe mu feeñ fii ci Sénégal. moom itam moo amoon mission wax naa la ko ci njëlbeen sànq mission wu Serigne Touba moo doon mu tabax nit ak ay valeur am léegi nag li taxoon tubaab bi jël Serigne Touba yóbbu ko c'est pas parce que da doon jullee koor ndax loolu ñu ko doon def ci réew mi bari nañ te yóbbuwuñ leen mais nag li tax mu jël Serigne Touba yóbbu ko c'est parce que dafa subversif dama la wax ne la buur bi nga xam ne nekkoon na ak Serigne Touba. bi waajuram wu góor moom Serigne bi bi waajuram wu góor eh, eh, génne àdduna. dafa am mag ñi ci ñu ko jege woon lool ñëw daat ne ko buur bi nga xam ne sa wóllëre la woon ak sëriñ bu mag bi Mamor Anta Sali danoo bëgg ñu koy digal ngir mu dem commencé di eh, saafonteeg buur bi mu bëgg a nekk ci soumission boobu ngir mën a bénéfice ci yi nga xam ne ay teraangay àdduna la sëriñ Tuubaa xamal leen ne leen yaakaar moom duma ko def ku dul yàlla suñu borom subhaanahu wa yaakaar nag. maanaam euh, bëgg-bëgg awma ko ci lu dul xam-xam ak diine sëriñ bi bi mu xamee ne foofu nekk mooy fu baax fi loolu itam dafa bëggoon yaatal ko ba ñi nga xam ne jege nañ ko mën cee mën cee jariñu mooy tabax nit bi ma lay wax mm-hmm. ndax réew mi jamono boobu lu ko rafle woon la amuñu woon ay nit ñoo xam ne defaru nañ xaj na defaru ba ca war ngir mën a euh, jàkkaarloog tubaab bi tubaab bi dafa xam ne mission wu sëriñ tubaab yi du ko du ko arrangé moom itam mu ñëw ak ay directive am sànq dama ne la sëriñ bi yóbbuñ ko ndax da doon jullee ko woor waaye dañ ko yóbbu parce que tout simplement dafa subversif maanaam kenn mënu ko digal mu def ko dul yàlla suñu borom subhaanahu wa taala tubaab bi xam ne boo ko fi bàyyee sëriñ bi dina fi liggéey tabax fi ay doomu aadama yoo xam ne dañuy nit nekk ay nit yu décomplexé maanaam du ñu am complexe face ak tubaab bi ba pare dañuy nekk ay nit yu màndi lool ci xam-xam lu tubaab bi def dañuy def lu ko raw ñu xam ne tubaab bi sëriñ bi day yàq seen liggéey ñu jëlee ko fi ngir bëgg ko yóbbu sànq ko nii la mbir yi demee. Hmm. am na Serigne bi ñu ko woowee fii bureau hmm. tubaab bi ko woowee bu fekkoon kuy ragal la bu duggee dina tal leneen lu du naafi hmm. naafilaam itam bi mu ko tàmbalee ci li mu def ci ay waxtu ci lu ñu wax loolu tubaab bi bu ñeme sëriñ Serigne du ko bàyyi mu naafila. waaw waaye naafila na. tey itam tontoom bu rëy boobu tontoom bu rëy boobu mu tontu tubaab bi. ci lii nga xamante ni si saar wi nga xam ne day kennal nekkul suñu borom nekk suñu borom bi xul wallaahu ahad allahu samad lam yirit walam yulat walam yakul lahu kufuwan ahad war nañoo sant Sëriñ Tuubaa bu wér a wér ndax boobu daf ko waat foofu dafa wan ne li mu doon jëmmal ci jamono bañ ko wax naan ko demal nga jegal la joor te mu def benn rupture totale par rapport ak existence am sur le plan spirituel ak existence ñi nga xam ne ay nitu àdduna la daf koo jëmmalaat fële yaakaaram tegu ko fenn fu fudul suñu borom subhaanahu wa taala doomu aadama nag noonu ngay mel waaw waroo yaakaar kenn ko dul yàlla te itam ragal daal yëpp yàlla la sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah <laughs> balaa ngay tëj rek euh, Abdoulaye ñi nga xamante ne tey. ñi ngi jël yoon wi eh, wax nga ko sànq ci biir waxtaan pratiquement ndaw ñi tey boo doon dénk ay kàddu ci jamono yan kaddu nga leen dénk yan orientation nga dama koy dama ciy jiital sax suma bopp. Hmm. ndax man ci ndaw ñi laa bokk. mooy nañu sax ci njub ak bëgg lu baax ak dunde lu lew te bu fekkee ne danga gëm nit. topp ko ne moom nga yaakaar da tënku ci li mu tënku lu ko may ngeen jégal ma ci kàddu gi yaa ngi ci fen wu nëbbu te itam sax yaa ngi jëw ndax ca ngay jàpp ne mu nga gëm ca la mu nekkoon nekkoo ci sëñ Tuubaa nag ci ngëm ci ci gëm yàlla la nekkoon topp sunnay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu yépp mënoo ko def li dul lu dul dangaa jub waaw lu dul dangaa dangaa dangaa bëgg lu baax loolu da sax ci ndigal yi te moytu tere yi ah, loolu daal laa ne naa ko dénk ndaw ñëpp te jiital ci suma bopp. Abdoulaye gis nañ ne balaa ñuy tëj rek ndax loolu lu ma lu ma soxal la liggéey yu mag ñi fii ci biir réew mi am na ñoo xamante ne dañu taxaw temb ngir di xajamal mag ñi li ñu li ñu li ñu li ñu liggéey léeg-léeg da koy gis à travers les réseaux sociaux nga gis dafa ñuy bootu ci ginnaaw ay tur di jéem a féewale mag yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi ban jàngat nga am ci loolu. waaw mais mag ñi dañoo am fulla hmm. dañoo am fulla loolu te te itam loolu mag ñi duñ ko yàkkam duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko nangu mukk ndax dañoo liggéey liggéey bu rafet bàyyi ko fi li nga xamante ne si moom mooy moom mooy saytu liggéey boobu mi ngi fi baatin boobu mi ngi fi du fi jóg te itam da ngay gis ne eh, xalif général bu ñëw rek da ngay gis ne suñu borom day rotal ci jëmmam saa su nekk loo xam ne day dalal suñu xel ci lépp. Ah, ba ci xalif bi nga xam ne mooy sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla ko fi yàgg yàlla yàggal da ngay gis jëflante yu rafet yi nga xam ne mu ngi koy am ci diggante tarixa yeeg yooyu eh, tey ku jox cër doomu aadama la. Hmm. ku jox cër itam xam na bu baax mission bi nga xam ne ñële ñu ngi ko amoon xam nga eh, sa noonu démb bu nangoo ren ay pexem daa sottiwul tubaab bi ñëwatul day yónnee. ña mu yónni nag mooy ñi nga ma wax nii waaye ñim ko seqal ñoom ils sont parfond de set de set nouvelle stratégie établie par les tubaab pour mën a xajamal liggéey boobu waaye ñi nga xam ne liggéey nañ liggéey bi bàyyi ko fi ñu am fulla te baatin bi gàdd liggéey bi ba léegi ñu ngi fi jugo fi ah ndax sëriñ bi jugu fi waa Seydi Hadj Malick tam jugu fi ndax ñi ñu fi bàyyi di ñu leen di représenter dañoo mat sëkk ndax baatin bi daa rot ci ñoom suñu Bourou Mbacke daan la ko wax Bamba ji sikkul Maodo ji sikkul ku ne la jéem a sikkale yow yaa sikk mi ngi noonu ñu ngi suñu jeexitalu émission bu ko defee rek Abdoulaye Anne dañu lay bàyyi nga tàggatoo. jërëjëf Abdoul Aziz maa ngi bég lool ci waxtaan yu ma am ak yow. Mm-hmm. di kontaan bu baax ci amee ko sax ci fii nga xam ne mooy Médina sa kër la. Ah, di leen xamal rek ne wax ji dañ ci doon dem ak yéene bu baax a baax lépp lu ci jub ngeen xam ne yàlla suñu borom subhaanahu wa taala lépp lu ci dëng ngeen xam ne doomu aadama matul ñu ngi ciy jégalu bu baax di kontaan bu baax di leen jox rendez-vous ci fan yu néew rek. incha allah incha allah rabbi pour ñëwaat defaat yeneen waxtaan. incha allah ànd koog sëñ eh, Abdoul Aziz Dabakh mu baax mi di xaritu ñu baax ñi. waaw jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah. mi ngi noonu ni ma ko waxee noonu lay demee fii ci biir Medina TV dinañ ñëw ci yeneen daje moom mi ci kër gi la bokk Abdoulaye Anne di nit ko yàlla baaxal dinañ ñëwaat. ci yeneen fànn ci yeneen aspect ci yeneen i melo incha allah rabbi fii ci biir Médina bi en route vers Magal lañu wax yàlla nañ ci yàlla yóbbu Cheikhul Khadim yàlla nañ ki yàlla fayal ci barkante bi sallallahu alayhi wa sallam mag ñu baax ñi yàlla na leen yàlla fay dama koy faral di ko wax billaahi lam yaati wala sa yaati muslim ne abdillahi zil ayaati moom cheikhul xadim noonu la bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léppam rasulillahi la mag ñi dañ daan topp yonent bi rek bu teggee tànkam rek ñu teg bu ñu teggee rek ñu teg yàlla nañu yàlla fayal cheikhul xadim salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Abdoulaye ba màggal incha allah incha allah rabbi jërëjëf